على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائي عما بصحبي على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا دائما عما بصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده sayidina mumajjadi alxabiba kullu muslimi muhammadu ibnu abdillah wa ala ali wa man tabi'ahum ila yawmi din ayuha almustami'una alkiram nuhayyikum jami'an aska tahiya tayiba saliha zakiya minni ilaykum ana ahula assalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sangu-sang yi maa ngi nuyu ñëpp di ziyaara ñëpp di baalu ñëpp a te di baal ñëpp a xàq mboolem kuy déglu émission bi ñoo ngi laa nuyu bu baax di jiital nuyu bi kilifa bi Mouhamadul Moustapha ñu teg si Mouhamed teg si Ousseynou teg si ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci kër gi ak borom émission bi macha allah tabaarakallah di nuyu suñu jigéen ñoom soxna Adama soxna Ndeye Ndak tabaarakallah eh, di nuyu ñëpp. di nuyu mboolem sénégalais ñépp di jiital xalifa généraux yi Sidi Aboubacar si ibnu Mouhamadou Mansour Bal Xawm Serigne Mountakha Mbacké tabarakallah Cheikh Mahi ak mboolem xalifa généraux bu nekk ci biir senegal ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di nuyu sama waa dëkk di ci jiital suñu kilifa Serigne Assane Diène teg ci sama papa Serigne Issa Diène tabarakallah waaye nag sama soxna mënu moo ko ñàkk nuyu sinon rek du baax nuyu nañ ko bu baax a baax soxna Mareet di nuyu sama yaay mère Seynabou Dieng ak mère Seynabou Fall nuyu nañ ñëpp tabarak yat na ba noppi te mooy actualité bi nga xamante moom moo xew kon fa tabaraka la ñu wax ci wàccaay beeg ak ban xar moo mat a tabaski ak tabaski ndax farata na Muhammad waaye ba léegi dafa mel ni génnuñu génnuñu ci yonent bi sallallahu alayhi ndax yonent bi mu ne teg yàlla yonent bi yàlla daf ko royloo suñu maam ibrahim ndax ma kaana ibrahimu yahudiya wala nasaraniya walakin kaana xanifan musliman wa ma ana min al mushrikin moo tax bi yonent bi ñëwee yàlla daf ko ne wattabia millata ibrahima xanifan kon fa tabarakallah te sababu tabaski suñu maam ibrahima eh, fa la ndax bi mu am na ñu ni dem na ba am 90 ans am na ñu ni dem na ba am téeméeri at yu teg ñu ni moom si jëm ba amul doom mu ñaan yàlla ba yàlla way bay yàlla may ko doom moo waral alhamdulillahi lazi wahaba li ala kibari ismaila wa ishaq inna rabbi la samiu duaa kon bi mu ñaanee yàlla yàlla may ko doom diggante moom ak xaajara tabaarakallah ndax euh, soxna gi mu njëkkoon am mooy sarata xaajara may ko ibrahim mu nekk ñaareelam yàlla dogal sa eh, xaajara am doom tabaarakallah fekk maam ibrahim dafa ñaanoon yàlla mu ni ko soo ma maye doom dana ko rendi jaamoo la ko yàlla jël maam ibrahim may ko doom doom bi tuddoo ismail xam nga li nan cofeelu doom ak way jur ni muy mel maam ibrahima dem ba mu mel ni day fàtte fàttelu fàttewul yàlla yónniwaat jibril ne a ah neel sa waaji kat la mu waxoon na ko def ndax moo waxoon su ma ko mayee doom dana ko rend jaamoo ma ko na jël doomam rend ko ku ñu naan Ismail mu ni ah lii daal seytaane la ci ëllëg sa jibril ñëwaat waxaat ko loolu mu ni lii seytaane la ci troisième jour nag ci la ne ah kon lii nag dëgg la qaala yaa bunayya inni araa fi manaamik inni asbahuka fanzur maaza tara doom ji ne eh, xaala ya abati ifal ma tumaroon sa tajiduni insha allah min asaabirin li muy wane mooy borom kër gi dégg ndigal soxna si dégg ndigal doom ji tamit dégg ndigal wayjur maanaam si dafa dégg ndigal doom bi dégg ndigal wayjur boroom kër gi tamit dégg ndigalu boroomam kon wane ne ni jigéen boo nekkee ci kër da nga war a dégg ndigalu boroom kër gi doom tamit dafa war a dégg ndigalu wayjur yi ndax Ismaïl dégg ndigal moo waral mu ne bàyyi fan zur xaala eh, yaa abbati if al ma tumaroon bàyyi li sa borom digal def ko sa teju tajiduni insha allah mina sabirin man danaa muñ incha allahu rabbi ah maam ibrahima fekk mook xaajara waxtaan nañ ci biñ ci waxtaanee xaajar muñ ko comme yàlla moo la ko diggal dafa li la sa borom def maanaam dafa li la sa borom digal moo waral gis nga jigéen moo tax ñuy daw diggante safa ak marwa jigéen a tax ndax soroon ci jumtukaay wàllu lekk ak naan ba mu jeexee te maam Ibrahima ñëwagul Ismail nekk liir di jooy ndax lan lekkam jeex na naanam jeex na xaajara kom gisagul maam Ibrahim moom tamit muy jaabante diggante Safa ak Marwa bu dawee séentu Ibrahim ñëw di xool euh, mu ñëw di xool Ismail muy daw ba mu nekk juróom-ñaari tuur fekk maam Ismaila faka xaajara tegoon moo ngi doon dóor tànk yi fala ndox mi ballee bi xaajar ñëwee dinaan zam zam zam zam mooy dalal zam zam moom xaajara jël ci ndox mi tànk nandal ci nandal ci Ismail sangu ko fekk am na ay sàmmkat ya fa jaaroon sàmmkat yi jaar fa wëgg seeni jur ba ñu màndi moo waral euh, moo waral teenu zam-zam tey te teenu zam-zam Ismaayil moo ko sabab waaye nekk sabab bi moo ko jaare ci xaajara te ku dem màkk di nga daw diggante safa ak marwa di nga ko def juróom-ñaari tuur te loolu xaajara moo ko waral ngir lan dégg ndigalu borom kër muy benn dégg ndigal borom kër moo tax borom kër gi yóbbu ko ba ca àll ba taaj ko fa mu toog te tey jii boo ci takkoon jigéen yóbbu ko ba ca àll ba wutal ko fa baraak bàyyi ko fa li mu lay njëkk a tontu mooy juróoma jëndoo moo te muñ ko xoola sa pàpp daf lay rendi Ismaïl tamit sànni ko ay xeer Iblis daw fekk maam Ismaïl papam waxtaan na ak moom te loolu li ci yàlla di jàngale mooy borom kër gus nekk dafa war a diisu ay njabootam wa amruhum suwara baynahum moo waral fekk fekk maam Ismaïl mesure na dëgër na am na 18 ans am na 18 ans te su fekkonte ni maam Ibrahima dafa ren doon Ismaïl góor gu am 18 ans rek sa sa danal tabaski waaye comme yàlla bëggul loolu di continuer dina am nu mu koy saafara waaye il moom ma euh, moom mu nattu maam Ibrahim te loolu dal na Abdou Moutalib dal na Seydina Ali ndax Abdou Moutalib li maam Ibrahima def def na ko waaye bi mu ko defee yàlla def ko ne matalal la nga doon waxool Seydina Ali moom tamit def na ko yàlla ne ko ufu bil ahd ufu bi eh, maam Ibrahima ànd ak ba ca àll ba mook ba léegi ñoo ngi waxtaan fa lama aslama watallaahi li watallaahi lil jabini wa nadaynaahu an ya Ibrahima xat sadaqta ruya inna kadalika nazil muhsinin mu àgg Ismaël ne baay danga nga màgget da takk samay tànk ak samay loxo ñaareel ba mooy dangay muur samay bët nga muur say bët ndax cofeelu baay ci doom ak cofeelu doom ci baay ndax soo muurul say bët dooma reddi soo muurul samay bët tamit dooma reddi te esa màgget nga amoo kattan dangay ngay takk samay loxo ak samay tànk ngir man ma bañ a fipp su ma fippoo mun naa la gaañ te bu boobaa damay yàq yool gi mu summi yërëb ne papa bu àggee nga joxal ma sama yaay sama yërëb yi te nanga ne samay xarit ñoom nañu arrêté seen tànk suñu kër ndax damay bañ sama yaay xelam di dem ci man mu yàq yoolam gis nga maam Ibrahima def loolu takk Ismail ba mu dëgër muur bëtu Ismail muur ay bëtam jël paag bi teg rendi waaye comme yàlla joxul paaka bi ndigal paaka bi du rendi nit du rendi de te paaka du rendi kenn paaka du rey kenn ndigal rek mu dawal dara daggul mu jël paaka bi daas dawalaat dara daggul mu jël daas ba mu ñetti yoon paaka bi daggul mu jël paaka bi dem dóor ko ci xeer bi xeer bi xar ñaar mu ni yow yow paaka sama boroom ne ma rendi sama doom ma ñëw di rendi sama doom may ma jël la teg la ci putu Ismaïl nga bañ a dagg yaay kan mu dóor ko ci xeer bi paaka bi xeer bi xar ñaar yàlla ne Jibril ah sa waay dogu na de dawal gaaw boo yéexee nekk sa garaat boo yeexee mais effacé sa tuur ci biir àjjana te sa garaat dama koy déclaré mu ni boo àggee na nga jël kuy mu mag maam Ibrahima buy teg paaka bi na fekk kuy gi roofu jibril daw biir aljana jël kuy mu mag maam ibrahim fa muy tegee paaga fekk jibril rocc ismail roof xarma ismail taxaw ne la jibril taxaw ne maam ibrahima ba mu tegee paaka bi rek paaka bi dawal deret ji tuuru mu foog ni ismail la comme moom daa takk bëtam foog ni ismail la bi deret ji tuuroo mu ni allahu akbar mu ne allahu akbar allahu akbar ba muy ñetti yoon maam ismail tamit waxaat allahu akbar allahu akbar jibril allahu akbar xar ma ñu rendi woon xar mi ne ñokket ne allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin mu nekk ñeent moom bi mu tekkee morceau bi mu gis ni muy xar mu mag mu ne wa fadaynaahu bi zibhin azimin gars yi am na sax borom kayfiyaat ñu mel ni Mouhamadou Moustapha Ngom ñoom luñ ciy liggéeyee pour ki ki bëgg am xar boo ko defee yàlla mën na dagal nga am xar yooyu ay yeneen la gis nga maam Ismaïla remplacé nañ ko xar mu sant si yàlla waaye loolu yëpp nag ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu yëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi moo tax ñuy naan borom kër bu jëndee xar bu ko soxna soxnam xeebal kar mi nit ñi kenn ku nekk day jël di wax ni euh, borom kër gi rek moo war a tabaski yéeni wala ay njabootam jëre charia santaanu loolu charia dafa ni képp ku ko mën li ma ni istataa képp ku ko mën jëndeel nga tabaski xorri euh, saxiiran aw kabiran zukuran aw euh, zukuran aw aw inaasan xorriyatan ne moo xam xale nga moo xam mag moo xam góor moo xam jigéen fekk man nga demal nga jëndi ndax sunna la tey su fekkente ni misaal la joxe man Mouhamadou Moustapha Ousseynou Mouhamed ñoo bokk ndey ak baay kilifa kër gi nekk fi li ma yor matul Mouhamadou Moustapha li mu yor matul Mouhamed li mu yor matul Ousseynou li mu yor matul kilifa gi li mu yor matul nañu boole lépp jox ko kilifa bi kilifa bi dem jënd foofu la ñuy ne benn xar ci kër waaye fekk ñun ñëpp man nañu rek liy sunna mooy kenn ku si nekk dem jëndi su fekkee du yàq nag am na ñoo xam ne dañ siy puukaraw tabaski di puukaraw xar mi nag loo ko jëndee jar na ko waaye boo ko jëndee nag sóoraale sa dëkkandoo bi nga xam ne dooleem demeewul noonu nga jëndi dugal sa biir kër waaye léegi dafa mel ni nit ñi dañuy dañuy ñaawalante da ngay gis ku jënd xar mu rëy yeew ko ci buntu kër gi ay doomam génn di dose di naan sam papa jëndee na kuwe léegi nag yow su fekkee sa doole dem demewul noonu boo jëndee xar mu yam soxna si mooy njëkk a wax ne xar mi du dugg ci kër gi te loolu ah jekkul jaaduwul ñaareel ba mooy xar bi nga xamante ne war nañ ko tabaskee ban xar la jaaykatu xar yi war nañ si jàppale nit ñi xar mi na am at na am at lu mu manqué manqué manqué manqué manqué na mat huit mois xar mi lu mu manqué manqué manqué huit mois na mat waaye nag su fekkente ni mat na at moo gën bu mu nekk xar mu loof rey mu dee reyul mu dee bu mu ko doon ba mu nekkee xar mu feebar ba feebar goo xamante ni dafay feeñ ba ñëpp xam ne kanam xar mi dafa feebar ba mu nekk xar moo xamante dafa pat xar mu pat baaxul xar moo xamante ni tamit béjjën bi dafa damm boo xaajee dammit yi ñaari xaaj yëpp maanaam soo euh, bi boo ko xaajee ñetti xaaj gi dafa dagg dagg gi nag ñu natt ko ñaari xaaj yi dem matul tabaski xar muy soox matul tabaski moom mooy xar mu làgg rek matul tabaski xar mu amul gerees matul tabaski te léegi yi ñu naar yeeg pël yi di jaay moom da ngay waaru ñu mbokk pël yi moom ñoom xaalis rek lañu bëgg kon yooyu yëpp ñu bàyyi ci xel waaye bu mu nekk xar moo xamante ne tamit dafa muma xar mu muuma mooy xar mu dul mbee xar mudul dul mbee baaxul dafa am sama benn waay bu jënd xar bi mu ko jëndee xar mi 17 heures ci ngoon ba 6 heures ci matin xar mi mbeewul doom ji toog toog mu ni papa xar mi mbeewul de xar mi mbeewul de papa ji tiit lool nekk mu ni kon sama tabaski de dana yàqu ci sept heures sept heures fi muy jotee xar mi ne mbee mu ne alhamdulilah rabil alamin kon ndax matul tabaski moo tax te doo jënd ba noppi nag toog ba heure boobu xar mi ne tekki tekkaara ñu ni xar mi dafa muuma du la arrangé xar mu dof xar day dof matul tabaski mooy xar moo xamante ne moom fu mu jublu rek foofu la xar moom matul tabaski xar mu xamante ne karaw gi dafa ruus ba jeex matul tabaski moom mooy xar mu ràgg matul tabaski léegi nag ban xar la ñuy tabaskee xar bu góor xar bu góor la ñuy jën ne nekk kuy mu mag nekk te puukare bu mu tax nañ ko def te yàlla rek a tax borom euh, borom kër gi dooleem fi mu toll ne ko jënd waaye lu gàtt gàtt xar me ne nekk xar mu góor na am at na mat at te nekk xar mu góor su fekkente ne amuloo xar bu góor nga doog jënd xar mu jigéen borom kër gi bu àndee xar mu jigéen ngalawaay yow soxna si teel nga xam ni yàpp gi taxul lan yanaala allahu luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu eh, eh, walakin yanaalu taxwa minkum yàlla ne yàpp bi soxlu ma ko deret gi soxloo ma ko der gi soxloo ma ko loolu yëpp yéen a ko moom man li ma soxla ci yéen mooy ragal yàlla gi su fekkee amul xar mu jigéen mu doog a jëndi béy am na benn émission bu ma ko doon waxtaane benn tele nit ñi di reetaan man leen nag béy yii imaam yi ci senegal ñoo war a njëkk a tabaskee bay ba noppi yombul nag tabaskee béy lu dagan la waa tey boo jëndee béy ñëpp dañuy dañuy jàppee ni da ngay saraxe wala da ngay ndëpp te soxna si moo njëkk wax ni béy bi dafa ndax jàpp ni da nga koo xet te fekk lu dagan la te ustaas yi nga xamante ne ñooy nekk ci télé yi tamit di ci waxtaan ci wàllu tabaski ñoom tamit nañu jënd béy ren di ba ñëpp gis bu boobaa bu ñu waxee ni ñi tabaskee béy dagan na ñépp danañ ko def waaye nga ne na ngeen tabaskee béy jënd sa koy mu mag bu boobaa tamit boo waxee nit ñi rendi euh, jënd leen bey ngeen rendi ko kenn du ko def kenn du ko def wa illaa boo béy bi boo ko jëndee di nga ko peinture nga dugal ko ci biir kër gi ba bët set balaa imaam bi di kii fekk nga rendi def la ngay def ba soxna du comprendre nu mu def comme sam xarit bi nu mu defoon rek jënd béy peinture ko asamaan si taw ci koy béy bi yooyu yëpp lu mat a bàyyi xel la su fekkee amuloo béy nga doog a jënd nag te nag moo gën a cher bu nag amul nga doog a jënd gëléem gis nga bu nekkoon yàlla mu ni da ngeen di jënd gëléem bu boobaa coono day dugg waaye dafa njëkkee xar mu ni bu amul bu góor jëndeel bu jigéen bu amul bu jigéen nga jënd béy nga la waay nekk balaa ñoo àgg foofu nekk danañu am tabaski kana léegi ñu gis jamonoy tey borom kër yëpp li ñuy njëkk lijjanti mooy ñaw ñaw du farata ñaw di sunna lii sunna mooy xar ma xar bi mooy sunna balaa ngaa lijjanti ñaw lijjantil xar bi ba noppi bu la wóoree xar bi yem ni ak la koy toggook yëpp nga doog a lijjanti ñaw même soo amul xar nga lijjanti ay ñaw danga war a jaay tisi yooyu dem jënde ko xar waaye tey sa soxna boo ko ñawulul ñëpp dégg leen boo ko ñawulul ñëpp dégg leen te loolu yëpp mën na si bàyyi mën na si bàyyi xel waxiya moom tabaski sunnatun sunna la alal mustatii ñeel ki ko mën tabaski sunna la ci ki mën alxurriyatu na nekk gor nag jaam tabaski waru ko gor lay doon al muslim na nekk julit yéeféer tabaski waru ko kaana aw saxiiran su fekkente moom xale mu am ko na jëndi zakaran moo xam góor aw unsa wala jigéen muhiman moo xam dafa nekk ci dëkk bi aw musaafira wala mu tukki génn kër masaar tukki dem peneen bu boobaa su amee lu muy jëndee tabaski na ko jënd rend karam tabaski xayra xaj jin waxuñu ne ku dem aj ku dem aj tabaski waru ko bi min moo xam da nga nekk min moo xam da nga nekk feneen bu boobaa tabaski waru la an nafsihi wa an man talzamahu nafahatum moo xam sa bopp la ak mboolem koo xamante ni dépassam yow la war bu boobaa boo jëndilee sa njaboot tabaski te fekk yow yaa ngi màkk baax na dagan na de te borom kër gus nekk balaa moo dem màkk dafa war a bàyyi lu doy ci këram ba noppi waaye ñu si bari ñoo ngi dem màkk waaye bëgg dem màkk doo nga la nag nit booy dem màkk sa kër dépasse bi warul manqué ba balaa ngaa dellu si waat li ñuy tëbaske da ko fi war a bàyyi moo tax an nafsi wa an man talzamahu nafahatuhum ñu ne kan ak kan mu ni say doom boo ko defalee say doom baax na wal abaa yi wala doom tamit defal ko baayam baax na sa papa amul lu muy jëndee nga jëndal ko jox ko mu tabaski falilaay alhamdu baax na waaye nag li gën su fekkee sa baay amul ngayor yor jëndal nga yéene wala sa baay waaye boo ko defee suñu réew bi nga xam mooy senegal li ñuy njëkk a wax mooy dafa amul yar amul teggin dafa gis boppam alalam daf koo jay ñu commencer la dëkkal foo xam du foofu fekk yow da nga jëfandikoo sariya moo tax euh, jëndal jox sa baay mu yéene waale la su fekkee aadee Sénégal la boobu moom aada la waaye du sunna bu dee boobu moom aada la ci Sénégal waaye du sunna nga jënd jox sa baay mu yéene waale la waaye lii sunna mooy yow nga jënd yéene waale sa papa su fekkee amul waaye bu boobaa sa papa dana am way bu dul fay moo tax doom doom bootu ci ginaaw way juróom moo gën a yomb way jur bootu ci ginaaw léegi nag foofu nekk aada gu rafet la yow doom boo joxee sa way jur kenn du la xas sa wayjur yóbbaale la mooy gën yow nga yóbbaale ko ndax mu mooy borom kër gi alfuqaraa walla ku ñàkk nga jëndal ko jox ko mu tabaski dagat na comme ni mu Mouhamadou Moussa Ngom di def di def social di ko jox ni ñi ak ñeneen ñi nga xam te ñoo koy jàppale loolu tamit baax na léegi ne kañ lañuy rendi rendi tabaski kañ lañ koy def mooy ginaaw bi imaam rendee ba noppi comme tey fii bu amee jàkka wala bu amee koo xam te muy jiite waa gox gi waa quartier gi imaam bi day rendi ba noppi ñeneen ñi des ñu doog a rendi fekk imaam bi rendul kenn du rendi moo tax mu ne wa waxtuhu baxda naxri imaami ginnaaw bi imaam rende ba noppi ci la ñu rend min yawmi nahri nekk ci bisum tëbaski bi nekk lay doon man zabiha hablahu képp ku rende avant julli gi mu ni kooku nekk lam yusi du am tëbaski de di nga am yàpp nekk di nga am yàpp di nga noos di nga def leneen waaye nag du am tëbaski ki moo tax mu ni fa man zabiha hablahu lam yusihi wa man laa imaama lahu fal raw ki nga xamante ni ñi nga xamante amuñu imam mu ne ñooñu dañuy nattale ñi nga xamante amuñu imam dañuy nattale fi ñu nattale salaatal ahrabul aimma julli ñi nga xamante ni ñoo leen gën jege ci imam waaye léegi yaakaar na moom senegal foo dem rek am na imam bu leen di jiite foo dem am na imam bu leen di jiite kon imam boobu la ñuy xaar mu rendi ba noppi bu rendee ñeneen ñi ci des doo ko rendi moo tax salaatul ahrabun a'immatu ilayhi wa nahruhu wa hal muraadul bil imaami imaaman salaatan awil abbaasi mu ni waxal muradul imaam mu ni waxal ndax muraddu nammu nañu bil imaame ci imaam mu ni imaamu salaat mooy imaam bi nga xam moo jiite julli bi bu dee jamono gu njëkk ga côté Makka awil abbas yu ñu ñuy naan euh, euh, maa ki ñuy naan imam abbas ñoom ñoo daan jiite waaye léegi mënuñoo sukkandiku ci waa Makka ndax waa Makka dañuy julli te ñun ak Makka cinq heures de temps dox na suñu diggante kon boo naree xaar waa Makka rendi ba noppi doog rendi loolu du sotti moo tax yow ki la jiite fii ngay xaar mu rendi ba noppi nga doog a rendi loolu nag xawlaa ni am na ñaari wax am na ñaari wax de naxari avant bisub tabaski aw yow ma naxari wala bisum tabaski bi baadal faj bi ginnaaw bi ñu jullee fajar ba noppi xabla tului shamsi avant jant di la lam yu ji amuloo tabaski la yu ji amuloo tabaski mooy mooy comme li ma wax sànq bu dee béy la moom di nga ko teel a rendi moom si moom kër gi moom da nga ci génn li moo tax waa waa àll bi xaw ma nee ñëw du ñu rey seen bopp ci xar yii de béy la ñuy jënd am ci ferte nag teg ko ci diggu gër gi wana ko bu ñëpp rendee ñoom te ñu tëral seen béy rendi dagan na dara nekku ca waaye bu dee Dakar Ndiaye fii moom fii ba déwén yow la ñuy waxtaane fii ba déwén te li koy waral ne ngay rendi avant jant di fenk bañ soxla na si mere ak yow bañ soxna si buub bagaasam dem nga bañ sa yàpp tabaski ñu bañ la ko toggal mooy waral di nga ko teel a rendi de boo ko teel a rendi moom du am tabaski waaye di waaye moom di am yàpp bu dee mbokk pël yi moom mën nañ seen noos ba doyal mu ni wa ax la lu ci gën a néew nag maa yu ji u la nga xam ne dañoo doy sëkk ne fii daxaaya ci tabaski meneel as naa ni gis ah mooy li ma wax sànq rek mooy xar moo xam ne am na at meneel as naan ci ay at gis ah moom mooy bu fokk su fekkente ne am na huit mois mu fokk baax na waaye fekk fokkul nag bo boobaa du mat tabaski minal daa di ci xar bu góor amul jigéen bu jigéen amul nag wal maazi béy wal maazi béy li ma wax nag ci sharia laa ko teg de béy baax na tabaski de Mouhamadou Moustapha jëndal béy nga teg ko ci kër gi rendi ko su ko defee ñëpp roy ñëpp roy ci yow waxwa ibn moom xar mi ngay tëbaskee ibnu sanna ne nekk xar mu am at gu mat sëkk bu dee nag nekk wasanni yun minal bahara minal minal baharit wa ma daxala fi sanata rabia bu dee nag da ngay jënd nag boo xam te ni am na ñetti at ba dugg ci ñeenti at te nag boobu boo ko naree jënd dinañ la ko jaayee quatre cent mille cinq cent mille un million wasanni yun minal ibili huwa ma aw faa kam sa siniina bu dee gëléem la da ngay jënd gëléem goo xam ne am na juróomi at am na juróomi at léegi nag nga jënd xar moo gën a yomb xanaa xar lu mu bari bari bari bari bari bari bari boo amee cent cinquante mille dinga am xar même quatre vingt mille sax boo ko amee am xar waaye nag laa yukallifu llahu nafsa illa ma ataaha ak illa wasaha yàlla tegul doomu aadama lu mu doomu aadama leneen lu mu def ba jural ko coono moo ko teg boppam defal loo man rek de man de lu ma mën rek laay def su ma amul xar sama bootu sama ginnaaw way jur man ka góor gi yaruma de soxna si muñ mu jeex takk beneen bi ci topp mooy yow borom kër gi boo amee ñaari soxna nga jënd ñaari xar léegi nag yow sa bos anam jënd nga ñaari xar wane nga ne aaw beeg ñaareel bi léegi yow su fekkente ni benn soxna nga am nga jënd ñaari xar baax na de jënd jënd sa bopp jënd sa soxna baax na de waaye boo jëndee ñaari xar léegi nag yow yow ne ana sa bos booba sa soxna aaw bi am na tabaski ñaareel bi am na tabaski waaye yow borom kër gi yaa amul tabaski moo tax chari an ne boo abee ñaari soxna jëndal benn nga yóbbaale leen waaye nag bu leen ko def aadee Sénégal de bu ñuy rendi kii ñëw teg loxom kële ñëw teg loxom ñu naan dañuy yéene loolu yëpp du farata du sunna bidaa la aada la rek wala ñu rendi ba pare ngay capp ci deret gi di ko def sa jë loolu baaxul dafa xaram yéene gi mooy borom kër gi mooy yéene ni man maa ngi fas yéene rendi sama tabaski yóbbaale samay njaboot ak mboolem koo xamante ni dundam war na ma rek kooku day dugaale ci biir su ko defee ñu ni bismillah allahu akbar ñu rendi ñépp a bokk ci biir der bi bul jaay der bi te léegi gis naa ne nit ñi bu ñu rendee seen xarum tabaski ba noppi dañuy jaay der man baa a jildal adqiya fala udhiyahu fala udhiya lahu yonente bi ne képp koo xamante ne sa derum karum tabaski jaay nga ko mu ni amuloo tabaski noos nga de noos nga de ci yàpp gi waaye tabaski amatoo ci benn yool amatoo ci benn yiw mu ni euh, wa yuttaqa fi dahaya wal hadaya al uyuba mu ni wa yuttaqa na ngay teet na ngay moytu baatu teet nag mooy olof piir waaye nag comme ñu si bëri dégguñu wolof nañu wax moytu rek moo gën a yomb fii dexaayaa ci xar fii euh, nga tëbaske wal xadaaya ci ar boo ci xar boo xamante ne al uyu ba dafa am ayib xar mu am ayib baaxul moo tax mu ni fala yu si du doy de fii dexaaya ngay tëbaske xar mu dafa am ayib ñu ne ban la mu ne wal xadaaya awraa mooy xar moo xamante ni euh, dafa làgg dafa pat wa hiya allati zahaba nuuru ihda aynayhi lenn lenn ci ñaari bëtam yi dafa gumb li gars dina njàccaar mun naa xool nii di xujj xujj fekk gisul dara leer gi tax bët bi di gis leer googu moo dem kon su ko defee ñu teg suñu baaraam foofu rek ba beneen yoon incha allah rabbi lu si jub ñu xam ne ci yàlla la lu ci dëng ñu xam ne ci man mii la as ndong as jàmm moo doon jëm rek tabaraka la gàtt aliwa lool li ma ko waxee woon keroog rek tabaraka moo ngi noonu ku am looy jàllale rek wala ku am euh, loo bëgg annoncé boo ñëwee rek incha allah gars yi mën su ko defee numéro yaa ngi nii euh, bu ngeen euh, wootee ci 33 959 38 07 wala 77 822 10 86 képp koo xamante ni bëgg nga bokk ci sponsor yi wala nga am looy euh, looy jàllale wala nga am publicité booy def boo jokkoo ci numéro yi bu soobee yàlla gars yi dinañ la wax fi nga war a jaar incha allah rabbi seen bokk seen xarit Makhtar Diène moo doon amal waxtaan bi lu ci jub ci yàlla lu ci dëng ci man mii la kon asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngeen jégal ñu nuyoo bi rek incha allah rabbi comme bi ñuy commencé ak nuyoo woon nañu leneen la ci des bañ a rek jël temps bu bari rek tabaarakallah xam naa ba beneen jeudi incha allah rabbi bu ñëwee tamit ñu gën a yaatal mbir mi incha allah rabbi yal na yàlla defal jàmm def senegal jàmm def seeni poste dara def suñu poste dara yal na yàlla jagal tabaski bi ñi amul xar nañ ko am ñu amagul xartum yàlla yàlla na yàlla defal ñoom tamit ñu am ay jesneer xartum xewi na ay jesneer borom kër yi yàlla na yàlla may xar ak la kay xar ak la kay togg suñu mbokk pël yi moom yàlla na yàlla defal tabaski bu neex salaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu maa ngi jaajëfal ñëpp nag مولانا مر بنا دائي من عما بصهدي مولانا مر بنا دائي دائما عما بصحبه